mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak foo mën di nekk di féeti jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa su ko defee per dañuy ñëwaat ci association yi ni muy continuer di dox di dox di dox ba ñu ñëw ci association des sages Sage fondateur bi membre fondateur bi kan la ak initiative bi ci kan la jugee ba mu toll fi mu toll nii ñu ci bari xam nañ ni Sage ñu ngi def ay jéego macha allah jëm ci kaw. waaw les Sage moom euh, damay waxtu man yàlla ba ko fayee rek. waaw ni mu jóg jógtee nii damay ñaan ci yàlla yàlla ci yàlla teggi seytaane yàlla ci yàlla musal ci lépp lu ci ndog ak seytaane parce que yàlla daf mu am lu ma ci fay sama xol. Mm-hmm. mooy Pape Konaté. benn dañ dañ ko dañ ko daan wax capitaine Peka. Mm-hmm. te dëkkoon Pikine. Mm-hmm. daan bëri Pape Konaté war ngeen ko xam. Ah, parce que c'est waaw Kimé Kaaw xam nga loolu. waaw xam nga lool seen génération la sunu doom ju baax la nag. Mm-hmm. xale boobu moo ubbi benn site internet tudde ko site WhatsApp yi tudde ko euh, wasaare tudde ko kii les sages. groupe WhatsApp groupe WhatsApp waaw. mu def daal ma ci boole nag. ñu boole ci ñu waxtaan di waxante lu baax di defante lu baax. ba yàlla def Mor Fadam génn àddina. Ah, keroog gars yi yónnee ma xaalis bari fi ñu ne ko père Birahim daal comme xam nañ ci moom ñëpp xam nañ ci moom dëggu nañ ko yónnee ñii di ma yónnee ay dix mille cinquante mille yaay bi ñu dajalee lépp daal nekkoon na cinq cent cinq mille bi may dem mm-hmm. ànd ak Gris Bordeaux li ñu amoon moom bariwul woon ñoom mm-hmm. parce que ñoom bon motu woon sax cent mille wala ci la yem mm-hmm. ñu dolli ko ci li ñu amoon quatre cent et quelques mille muy cinq cent mille yu tegal ñu yaay ji def ci enveloppe daal dem jaale waaw léegi mu ñuy waxtaan groupe bi di waxante lu baax ñoom Boy Sey. ñoom euh, Mansour Diop a ngi ci biir. Euh, Boy Sey a ngi ci biir. dégg nga Mbaye Moustapha Guèye dégg ak ñoom Yaaya jàmme mhm. Yaaya Jammeh bu Pikine boobu. Mhm. xale bu baax ak ñoom Boy Abdou Ngom. Mhm. ak ñoom Serigne Kane waaw surtout Serigne Kane moomu. xale yu baax. dégg nga ñoom ñëpp def ci seen ñaq ak ñëpp. ak ñoom Abba Ndiaye ak ñoom Sidi Sade ak Ndongo Sade ñoom États-Unis lañ ne. ak ñoom Naar Touré ñoom ñëpp ñu ngi états ñoo ñëpp xale yëpp daal ci bokk ku ko yëg rek ñoo bokk si ci affaire ñu ne ci bokk ci ñooñu sa après bi ma group bi taxawee lañ def avant groupe bi taxaw nag ñu ne ma ne leen léegi yow group bu toll nii nga xam ne ku fi xewle feebar ñu jàppale la. Mm-hmm. ku fi deele ñu jàpp ak ñoom booy kayre. Mm-hmm. fekk jaay kayre jabar ji feebar na fi moom sa waxul dara man maa ne leen jaay jabar ji kat comme feebar na te mu ngi tëdd léegi dañ leen seet sunu ñaq. ñu dajale cent et quelques mille yóbbu fa dem ko ne ñoo la ko jàppale. Mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari na. Mm-hmm. mën naa lim ñu ci bari ñoo xam ne tey jii bi ñu amee problème groupe les sages. Mm-hmm. ñoo dajale ji ñaar dërëm ñi ñetti dërëm ñi fukki dërëm ñi ñaar junni saa dajale rek. daal dem yóbbul ko dem na ko ñoo la ko jàppale. may leen lii ngeen def nii comme lu baax la teeñ ko def association. ma wax Moussa Gueye Moussa Gueye ne ma ma dem Moussa parce que association Moussa Gueye dafa fekkoon mu bokkoon ci association bu tudd kii euh, Dekki Lamba. xam nga dekki làmb ñoom alaasana xale yooyu dañu boon moo ko boon ñu tudd dekki làmb man dugal nañ ma fa waaye dama ne fii du samay doom ak samay sët fa nekk xam nga foofu man du ma fa mën a bokk di peloo ñoom waaw man ma génn bi ñu formé les sages bi nag ma ñëw bokk ci les sages xam naa ci la bokk ci la bool nga nag ñu daal di commencé nag di doxal nag ñu ne léegi dañ leen war a récépissé Moustapha Gueye ñu waxtaan ci maa ngi leen ku mel ni Moustapha Gueye moom mate na ko parce que xale la ci ñi fi nekk ñoom bokk génération lu mu ci jiite dina mën a dox parce que buntu bu mu fëgg dañ ko ubbi. Mhm. Serigne Kane jàpp ci Cheikh Mbaba jàpp ci mhm. dégg nga euh, ak ñoom euh, Pape moom ak ñoom Yaya Jammeh ñoom xale yooyu yëpp bari nañ daal aba ah, ñoom ñëpp ñoo jàpp ci groupe bi taxawal ko ak ñoom Boy Kayre mhm. dégg nga ñoom bu ndafa ak ñëpp xale yu jàpp ñooy ñoo léegi dañ leen former station bi taxawal ko ci la ñuy def assemblée générale bu xumb ci fa ci jàkki sànc ba foofu ñu ko daan defee fa lañ ko defee daal taxawal bureau bi daal di fal Moustapha Gueye président foofu it man lañ def trésorier bi dégg nga euh, fal lañ secrétaire général muy Ousmane Diop mooy su lañ doy de booy bu baax moom it gol tàppale woon moom la ñu fal loolu léegi nag ñu ànd di doxal nag moom nag boobu bi ñu commencé doxal ba nag ni tubaarkàlla léegi kees gi presque romb na deux millions et quelque léegi rek laa versé fii am nga ba te li ñu def ci social rek mat na 3 millions. Mm-hmm. ñi fi gaañu ñëpp ku ci nekk yóbbu nañu deux cent mille wala lu bi ñu gën néew cent mille. Mm-hmm. yoo xam ne ñoo la ko jaxale mm-hmm. ñi fi feebar tamit jàppale nañ leen. ba Mbaye bi cent soixante mille lañ yóbbu foofu dem. Pape Diop boobu la ñu door sos nag. dégg ba nañ mille. dikkati cinquante mille jaxale ko benn frère am bu gaañu mooy quatre vingt cinq mille. waaw yooyu yëpp ay teranga la doon def yoo xam ne yi def nañ ko ci groupe bi. da nga ñoom booy dégool ci la bokk groupe bi. dégool tamit ñëw na. dégg yaatal nañ ko daal ñoom bur xaar ak ñëw nañ léegi mbooloo mi daal romb na quatre personnes fi ne quoi. Mm-hmm. en mu ngi jëm mbooloo la moo xam ne mi mu ngi jaar ci yoon mu ngi tegu ci yoon pour le moment parce que dëgg rek ko sas te dëgg googu ci moom lañ jëgg fas yéene féetewoon. Mm-hmm. waaw ba tax yaakaar naa boobu station daal fi ne nii. Mm-hmm. bu dee station Mbour dëgg la kon père su ma déggee wax ji mooy association les sages li ko tax a jóg mooy di dund social lépp loo xamante ne njabootu làmb bokk nañ ci saa sage dañ ci ànd ak yow di début à la fin. Hmm. looloo ko tax a jóg nag pourtant nag gis nga rek euh, ci commencement ba dëgg di association mbëri démb ménager. Hmm. association mbëri démb laa wax. Hmm. Euh, maanaam association des anciens lutteurs. mais looloo ko sosoon. parce que boobu dañ daan gis mbër feebar ñu di ko yalwaanal ak di ko ñaan la yooyu. ci la ma kati ne ma nañ former association des anciens lutteurs léegi suñ ko defee ñuy cotiser léegi lu ñu am di dajale di dajale bu tëggee suñuy làmb gi di mën a dimbali mbër yu mag mag yi nga xam ne eh, màggat màggat nañu am doom ñu leen dimbali jàpp ñu ci dara. yaa ngi dégg li ma la loolu social lépp yëpp yëpp social la ko tax a jóg social ba kay daa jékki-jékki génn féete boor. cinquante mille millions yooyu Ablaye Wade mayoon anam. ñaata lañ mayoon. cinquante millions. ban association la ko association bii maa nga jiite nii man maay trésorier bi gisuma xaalis bi dégguma xaalis bi xaalis bi dégg laa ci am. Hmm. waaw dégg laa ci am. cinquante millions. waaw. est-ce que dégg boobu leen ko paas ngeen ngeen ngeen séddoo ko ci moom xanaa ngeen ko ñaa dem ña ko doon jëli déet damaa dégg na ñoom foofa séddoo nañu foofa cinquante dix million yi lañ ko seddoo foofa ci la tubaab bu joxe wax dix millions xanaa yéen pare ngeen jëm wala fan ngeen jëm waaw. dégg nga tubaabu joor man fekkewu ma ko mm. tubaabu joor fekkewu ko mm. mbay géey fekkewu ko mm. ndam si yàlla kati euh, kii ndam si yàlla si Mor Fadam fekkewu ko kati mu ngi dégg fekkewu ko ñun ñii ñëpp laa wax bokk ci membre formé suñu association formé ba jëli mànga di dëggal keroog ba ñuy jëli millions yi fekkewuñu ko fekkewuñu dégg rek lañ ci am loolu ah. bokk na ci li nga xamante ni moo indi woon jafe ñëw na fii suba teel ñëw fi yëkkati cinquante mille jox ma. Mm-hmm. soixante quinze mille la ma jox. Mm-hmm. soixante quinze mille yi ne ma euh, vingt cinq mille yi maa la ko jox cinquante mil yi association bi la ko jox. Mm-hmm. booba nag mooy jamono yi ñuy jubalee ba ñu ànd nekk benn groupe di commencé doxal. keroog ba sëram gaañoo tamit. ci fat ci fajuj ba ñu demee groupe bu mbër yëpp dem ba ñu àndee dem ñu ni ñu cotisé lu waaye am may le man duma ci bokk. parce que maa nga dafa am lu ma def loolu laa koy delloo. ma buut sama am loon def ci vingt cinq mille dem joxal ko sama bopp parce que sama baay daf ma waxoon ne ku ma defal juróom ma defal la fukk su ma la mënta defal fukk it ma delloo la sa juróom mm-hmm. man ma jël sama vingt sama enveloppe def ci vingt cinq millions vingt cinq mille mm-hmm. vingt cinq mille francs laa wax daal di koy def ci enveloppe jox ko waaw mm-hmm. noonu laa séq ak moom saa yu ma ma saa am xew dañuy defal ma taraanga waaye moom saa yu amee xew lit ma defal ko taraanga waaw père ma lay jaajafal bu baax ndax xam naa ne li ñu li ñu tënkoon ci waxtu bari na lool lan nga gis ni ci association bi nga nekk nii Change war nañ ko mën a yokk mu gën a dëggal association bi gën ko jubal lan nga gis ni buñ ko ci deful mën naa mën na dund comme yeneen association yi fi jot a jaar rek day bokk ci lim bi. waaw lool li koy defar mooy dañu génne wax yu sew. Mm. wax yu sew baaxul ci groupe. baaxul ci kër. Mm-hmm. baaxul ci groupe. baaxul ci service baaxul ci fenn. Mm. wax lépp lu ñuy def nañ jiital dëgg teg ci kanam luy njariñ ñu di ko wax lu dul njëriñ ñu teg ko de côté. ay mag su ñu boolee nga xam ne kenn ku ne fa nga juddoo a fa sa morom juddoo yàlla mënoon naa def ngeen bañ a gisante sax. du ngeen xamante sax bay gisante kon su yàlla su demee ba boole leen ngeen ànd nekk benn di gisante di xàccandoo di tegandoo war ngeen a mën a muñalante xam nga muñalante bi lan moo koy dëgëral ñu moytu wax yu sew. wax yu sew baaxul. et puis te nañu gën baaxul. magum rambaaj baaxul mm-hmm. mag bu nekkee ci biir gone di rambaaj wala gone gi nekk ci biir mag di rambaaj rek mm-hmm. groupe boobay day tas rek day tas ni day fàtte di jéggale di baale mm-hmm. tey ji mën nga ànd ak Bachir benn waay gis rek seen ànd neexu ko mu ne waaye gis nga sa waajooju nangam nangam di commencé waaye na koy freiné mooy kooku du sama la sama rakk la sama wala sama mag la wala sama xarit la wala sama nangam la kooku du sama sama doomu ndey la mm-hmm. te lii nga ma wax nii gannaaw say bul ma ko waxati ah mm-hmm. su la su ma waxoon benn yoon tey ma ñëw bëgg laa jaxasee ak ba Bachir mii mm-hmm. ñëw wax la ci Bachir xam ne ah père la de waaye wax dëgg yàlla de moom la rusul woon de loolu dooma ko parce que Bachir de sama doomu ndey la sama lépp la kooku dañu yàllaa ñu boole liggéey sax liggéey bi sax moo ñu xamale waaye yàllaa ñu boole kooku est-ce ñëwati waxati la groupe bu defar looloo ko defar. waaye groupe bu fi yàqu. waaye kii da footoo waaye yow heure bu ne mu woo heure bu ne nii nangam di la jaay kii nangam nangam jaxase jël encens sëgg ci pétrole ba mu taal bi gën a tàkk. loolu koy def moytu ko. ñun nag moom la ñuy daw ci groupe bi parce que Moustapha Gueye jiite waaye jox na ma cër. sànqare bi may wooyee dafa am lu mu def lu ñu doon wax ci biir groupe bi mu ne ma woo ko wuyu moo ne ma dama laa rusa parce que li tax ma recevoir la man d' moo ci woon nangam te bëgguma nga xam ma ne ko waaw parce que man xam naa ne nga wax man du ma ko def. parce que jubale ma kooku xool xooloo jotewu leen dara amuñu benn problème kooku nan lañ may jubalee moom. loolu sama sama grandeur ma ko. te ma group bi ma gannaaw Mbaye Cissé ak Papa Kane nga Mbaye Cissé ak ak grand Pape ci mag. samay rek rek rek ci ak samay doom. kon tey su ma nekkee ba ñoom ma ne ma dafa ne ma la rusoo wax na dëgg. parce que moom it lu muy def day ñëw du ma gis nga tàq si waxtaan fi ñu yàgg seen kanam lu ñuy def dañuy waxtaan maak moom daf may laaj di laaj kat yi di laaj Ibou Ndafa di laaj gars yi mag ñi nga xam ne ñu ngi ci biir groupe bi ah ñuy xàccandoo tegal lu baax lu ñuy def ñoo koy bokk lépp luñ jóg te demul yoon dañu teg ko ci suuf loolu mooy doxal groupe. waaye daal Bachir euh, Abdou Khadir li ma lay wax daal nañu moytu wax ca kaw wax ci suuf baaxul wax ca kaw wax ca suuf day yàq mbooloo te mbooloo lu koy yokk. lu koy defar boo gën lu koy yàq. waaw groupe bi su mag suba làmb nag yàgg na ba làmb di ba nag ni tas rek nii rek. parce que dafa am benn intérêt bu ci nekk boo xam ne bu ñu ko doxalee dara du dox xam nga mooy lan. mooy ku nekk ci buum gi doo fàtte da ngay nga ki ci suuf. maanaam ku ne ci tàcc yi. fàtte nga ñi ci suuf. waaye bis bu tàcc yi jeexee nag foog nga ñu yëng yëngalaat foog nga yëngal pour ñu tuddaat ñi pour ñu tudd la pour pour nga si foofu seetlu ko waat. est-ce que seetlu nga loolu. loolu waxi mag la ah lay loolu nag la làmb dundee. loolu la làmb màggee. loolu la làmb dundee te buñ ko dundee loolu lay dee. ku nekk ci buum gi daal moom moom yaa ngi ci donkaasi gi ji rek. waaw succès bi tàcc yi foo raw ñu ne diw la diw la diw waaye bis boo demee ba tolof tolof yi commencé yow daan tey suba nga daanu léeg-léeg nga teg la ñaar defet am benn victoire léeg-léeg nga teg la ñett defet ba ñaan kii jeexal dang nang léegi nag nga yëngal groupe yi nag commencé ko jàppale waaw euh, loolu am na solo Pierre euh, mais comme suñu suñu maam Abdoulaye Wade recevoir woon na leen suñu papa Macky Sall kañ la leen recevoir yéen waa Sage. waa recevoir boobu tamit am na moo tax may la waxtaan bi da xajul ci benn jour xajul parce que bi ñu ubbi stade bu bees bi mhm. keroog bi ñu teg première pierre bi mhm. ñaari groupe ñoo dem. Mhm. te li may wax ni bëgg naa euh, kii bàyyi ci xel bu baax a baax muy Matar Ba. monsieur le ministre maa ngi koy nuyu de passage moog ndaw nit ku baax la nit ku yaru ku mën teg ku mën a encadrer mbooloo la parce que xam na li mu bëgg moom. xam na moom li mu bëgg mu ñu dox ko xam na ko mu ngi ciy dox. mooy keroog bi nga xamee ne bii ñu ngi fal mbool ñu ngi ñuy woo euh, ne dañu première pierre bi ñu def ñaar ñaari groupe la ñu ne association mbëri de ma fi nekkat ak association bi maa nga jiite. keroog am naa lu ma metti trop. Hmm. waaw parce que maa nga fu muy dem. ànd ak Mbaye Guèye ànd ak Faga ñooñ sax ñoo ñaar rek ma bet ñooñu dañ dañuy suñuy grand yoo xam ne yi ñoo ànd ak ñoom suñu ndaw lépp ba suñu yeex dara mosul ñaaw Faga maa ko boole ci groupe bi maa tax maa dem bu duggee ci groupe euh, euh, euh, d'anciens lutteurs maa ko jugal Mbaye Guèye wax naa la maa ko ci dugal ca Fass Mbao ca kaw terrasse ba xam naa ne mu toog yàlla na ko yàlla yokk kër bu dogee dina gis li dina xam li ma wax yaa ngi dégg ñooñu tey ji bu demee ba manga ñu bëgg ñoo tàggaleeg ñun ci àddina ak tubaabu joor fi mu tegoon mànga de fi mu tegoon kii Mbaye Guèye ci teraanga ci lépp ku baax tubaab ci côté yu teraangam loolu lay doon def ci ñoom tey ji demee ba ànd ak ñoom dégg nga ñu dem ba benn groupe ñu daje ñun ñëpp ministère ñu war dem première paire bi kenn ku nekk tey ñoom ñoom pose première paire stade bi ñun ñëpp ñu war fa teew ñu xàjjale ñu ñaari groupe la ñu xàjjale groupe Manga de aar nii groupe tubaabu joor ma gis dugg ko génn bi dugg ko génn Manga de jaar nii di jaar nii ànd ak mbag say saak soog ñuy dugg ko génn dugg ko kenn ma xam ne lii am na lu ñuy dox ñu di ko dox di ko dox waaye gis nga ba ñu duggee ba ñu duggee ñun ñëpp buñ premier jëkk dugg. ministre bi dugg rek mu daal may jox la eh voilà le voilà le grand technicien ah, ca Fass Mbao ca kaw terrasse ba. xam naa ne toog. yàlla na ko yàlla yokk kër bu dëggee dina gis li dina xam li ma wax yaa ngi dégg ñooñu tey jii bu demee ba mànga ñu bëgg ñoo tàggale ak ñun ci àddina ak tubaabu joor fi mu tegoon mànga de fi mu tegoon kii Mbaye Guèye ci teraanga ci lépp ku baax tubaab ci côté yu teraangam loolu doon def ci ñoom tey jii demee ba ànd ak ñoom dégg nga ñu dem ba benn groupe ñu daje ñun ñëpp ministère ñu war dem première paire bi kenn ku nekk tey ñoom ñoom pose première paire bi ñun ñëpp ñu war fa teew ñu xàjjale ñu ñaari groupe la ñu xaajale groupe Manga de aar nii groupe tubaabu joor jaar nii. ma gis du ko ko génn bi du ko génn Manga de jaar nii di jaar di mbag say saak soog mbay saak Diop ñuy du ko ko génn du ko kenn ma xam ne lii am na lu ñuy dox ñu di ko dox di ko dox waaye gis nga ba ñu duggee ba ñu duggee ñun ñëpp buñ premier jëkk a dugg. ministre bi damaa dugg rek mu daal ma jox la eh voilà le voilà le grand technicien ah voilà le grand technicien waaw ah, ma ne ko merci monsieur le ah waaye ndeysaan ñu daal di nuyoo lees ak ñoom lees ak ñoom du bokkat ah, saal déedéet déedéet ñoom lees ak ñoom kii euh, góor gi ah, assurance Diop ak ak ñooñu assurance Diop ak ñeneen ñoo bari woon nañu daal ak ñoom si Tafa Coor ak ñoom Mbaye Guèye ñoom ñoo ñëpp ñun ñoo nga foon ak ndam si si Mor Faram kat yi ñun ñëpp mais bi ñu dugg see toog ba pare ñu daal di wax am kenn moo jëkk a wax maa nga xaw ma kan man si wax ñu ne Birahim ñu jox ma parole ma nuyu ministre ministre ñaanal ko yàlla yàlla defal mandaam bi Eh, yàlla na yàlla def muy mandaa bu ah am ci ndam yoo xam ne benn ministre mosu ko am te it ba tey jii maa ngi koy ñaanal. Mhm. parce que ko ñaanal ko ñaanal senegal la. parce que Sénégal am coupe d'Afrique ñun ñoo ko moom. Mhm. am coupe du monde ñoo ko moom. Mhm. kon monsieur le ministre ñu ngi la koy ñaan ni ñu ko daan ñaanal la rek. te daal de boo ñu la ko ñaanee sunu bopp lañ ko ñaanal. yaa ngi dégg. ma ne nag ñu ngi nii toog ñun ñii ànd ñun ñëpp kenn ji si ak sa morom. ñu a ngi toog nii ngi toog ma ne ko ñun ñii ànd ñëpp ñëpp ñëpp ñii kenn jubóowu ci ak sa morom. du ñu laalante lii rek moo ñu fi dajale waaye du ñu laalante. <laughs> ah yow du ma waxatu yow tam man du ma waxatu. Oh, waaw maa leen dara ñu ñii ànd ñëpp ministre baa ngi toog secrétaire am a ngi toog ndaw a ngi toog ñëpp a ngi toog ministre Moussa ma ne ko ñun ñii toog ñëpp kenn àndu ceeg sa morom mu ne ma xam naa loolu. loolu tax ma bëgg euh, su lii paasee ma ngeen dajal leen ngeen ànd nekk benn ma ñaanal leen audience ngeen seeti président parce que ndimbal yi ngeen bëgg foofu lay yombee mais bu ngeen tii jaaree na le kële jaar na le ndimbal bi du yomb waaye ni muy yombee pour ngeen mën a seeti président mooy ngeen naan nekk benn. quoi waaw xanaa loolu waaye lii de du ñu naan ànduñu de ñu daal dem. waaye gis nga ba ñu dellusiwaatee. xam nga boobu boobu temps mooy ouverture bi. bi ñu dellusiwaatee bi ñu def tamit ministre bi ñu fa dellusiwaatee. bi ñu ñëwee dañoo tàggale. groupe Manga dafa jaar ne groupe tubaabu joor jaar ni ñu ñu recevoir jéem par ñëw dugg man tubaabu joor euh, Mor Fadam ak ak ak Kamadou Kati Diop. dégg nga ñoo jot ñëw parce que yeneen gars yi dañu sori woon ñoom Ibou Dafa gars yi woon. bi ñu leen wooyee pour ñu a ñëw da doon que yeneen groupe bi yaatu woon na waaye ñun ñi jige woon rek comme affaire bi jàmpoon na ñoo ñëw dem. ak ñoom jib juuf ak ñoo ñëpp dégg nga nii lañ def ñu tàggale ñu keroog njaay loo bii gaañu saan yàlla na ko yàlla yërëm Ndiaye Lo boobu daan def émission la. dafa waaw Baara dafa ne lii lii de ñaaw na. Bécaye Mbaye yomb fa fekk nañu fa Bécaye Mbaye ne lii de lii de lii de mosuma lu ñaaw a ngi ni tey ancien lutteur yëpp bokkandoo carrière bërendoo seen carrière ba nëgëri ñëw fa ba fii ñu tàggaloo ñii jaar na la ñii la jaar lu ñaaw a ngi nii. mais ministre bi loolu mu wax noonu bu fekkee ne keroog loola tey continué na ko tey bu ñëwee bu ñëwee ne bu bu ñëw def deux groupes daan déet loolu du ma recevoir kenn. dem leen kon que da ngeen di ànd nekk benn rek wala du loolu rek a mënu nekk loolu bu ñu ko defoon dañuy ñibbi noonu waaye dafa recevoir ji la par doon ñu recevoir. lii nga ah. wax dëgg président de la république. te loolu tam la ma lay wax nii loolu fekk amul mbër yi ànd ndàkkandoo tek benn si njiit lu baax nag njiit lu dëggul ni lu jub nii loo xam ne xool poosu boppam dégg nga li ma la wax intérêt yi la xool intere ba leen fekk amuñu njiit loolu président du ñu recevoir wala président bu ñu recevoir tamit ay kur fañ rek lay mujjee. maa la wax lii parce que alal su fekkee ne da nit da ko ñëw dimbali nga dem mu dimbali leen dimbali ma dimbali ma day tegu ci yoon. nan lay tegoo ci yoon teg ko ci foofu banque boo xam ne teg ci foo xam ne fii wut trésorier wut trésorier bu jub wut secrétaire biir bureau bu dëgër boo xam ne bu dërëm génnee ñu xam fi mu dënn bu duggee mu xam fi mu dugg. Mm-hmm. waaye jox la ay biir yoo nga dem jënd say kër jënd say oto jënd say biir te kenn ñi moomu la wax kenn ñi moomu la nga loolu ku ko def tamit defe nga ne rëcc nga fii mais rëcc ko. Mm-hmm. dana yàlla nañu yàlla dimbali ñuy lekk lu leew. Mm-hmm. li ma lay wax dama la koy wax di ko wax sama bopp di ko wax ñi may déglu di ko mm-hmm. yàlla yàlla dimbali rek lépp lu ñuy def ci sunu biir di ko def sunu njaboot it mm-hmm. yàlla na yàlla da fekk muy lu lew doom loo xam ne yaa ko ñaq yaa ko liggéey mu sel doom waaye alal ju sell dara wax bala ngaa génnaat na fii la lay war yàlla wane boppam. parce que léegi xelu nit ñi la. te loolu fekk làmb nii ñu ngi wax ministre président président président mais fekk làmb mbëri mi amuñu njiit lu jub euh, dara dara. dóorante fi kurfe yi ngay dégganteeg daa jaar ci kaw nit ñu rek a fi am te looloo fi ma saam jërëjëf per Birahim xam naa ni waxtaan bi neex na lool ndax yéen ñëpp yéen a ngi ciy teewlu waaye gis ngeen lépp loo xamante ni Père wax na ko ci mu doon njariñ ci làmb doon njariñ ci ñi nga xamante ni tey ñoo xeex yàgg yëkkati drapo làmb ba mu toll fii mu toll Père Birahim wax na ko kon tey am na loo xamante ne président de la république rek moo ci mën dara mooy dajale mag ñi nga xamante ne ay magum làmb lañ képp koo xamante ne magub làmb rek fépp fu mën a nekk ci réew mi di fi yeewoo rek ngeen recevoir leen ñu toog waxtaan ndax réeroo amul ñàkk waxtaan am bu ko defee ñoom ñëpp diggante bi ratax doon benn ndax ay kilifa lañ ay ay ay nit lañ ñoo xamante ne làmb rek la ñu bëgg loolu moom ñu lu koy diis président di la ko ñaanta yàlla na ko suñ borom defal peer ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf ah, sant di kontaan lool li ma ciy complété mooy Matar ba mu ngi woon ci yoon bi xam nga lu ko dévier nag waaye mu ngi ci yoon bi nag waaye yoon bi bu fekkee dafay am ñeneen ñu mu ci boole ñoo xam du ñuy mbër tamit bëgg leen dugal seen biir te ñooñu am na fu ñu far am na fu ñu ànd dara du dem. du dem parce que mbër mbër la. Mm-hmm. on a organisateur organisateur la promoteur promoteur la mm-hmm. dégg nga euh, amateur amateur la. Mm-hmm. waaye boo bëggee boole ñëpp te te dajandoog ñëpp di wax ñoom ñëpp toujours de fois kenn ku ne sa intérêt bopp rek ngay xëcc waaw loolu tam laa daa ko ci yokk ñu xool baax ma Matar Ba di ko sant di ko gërëm di ko nuyu nag mu gën a góorgóorlu rek parce que jiite mbooloo yombul waaw ma di sant di gërëm taxawaay bi rafet na waxtaan wi gudd na xam naa ne waxtaan wi sax ni mu amee lépp daal wax naa la bu lu ci nekk biit ba rek la l'essentiel ba biit ba rek laa la wax waaye buñ demee nañ ko doon dundee ci biir ak lépp am na ñu ci mën a génne mën a fàng mais na ci loo xam ne da ngay rek dem parce que ñenn ñi nekkatuñu fi te seen i doom a ngi fi seen set ngi fi te boo ko waxee mën naa andi mën naa andi jéey boo xam ne ko jar waaw moo tax da ngay wax la nga ci kii rek laay dem quoi mm. sant gërëm rek kontaan trop vraiment ci man xam naa ne bureau ba su ma ko mënoon a changé fii sax fi laa koy changé indi. bureau ba xam naa ni moom boo xefee ba maa la koy tuxalal indi ko fii saa su ne may ñëw ci Père Birahim Ndiaye ñuy waxtaan xam naa ni nag émission bii di ñëw dinañ waxtaan ci beneen pàcc bu gën a rëy am solo ci wàllu wasaare. waaw lépp loo ko jëm ci làmb daal eh, loo ma ci laaj dinaa ci wax la ma ca xam. waaw waaye nag dafa am loo xam ne dama ko sa waa ji ne ne ne ji li tur bi daa sedd waaye muy sol. dégg nga waaye nag dama ko waaw eh, la tudd Euh, xam nga amoon na benn booy bu ma la bu tudd bu tudd kii bu tudd ah, Assane Assane Assane kii. Assane maa ngi koy Assane Assane Kote Assane Kote te mu dëkk Diourbel voilà booy bi tam Diourbel voilà bo booy bi Diourbel tudd kii maane waay man man nan maane waay. waaw danaa la jox trop ba léegi sax xam naa ne dama dagg émission pour jox la may naa génn numéro léegi. mais nee na ma jiiri turam bi dafa seet trop. dafa leer da juróom bi maanaam turam bi dafa. dafa màgg dégg nga. Ah, waaye nekk yi muy sol. dégg waaye nag dama la ci bëgg ne sëñ bi. Mm. man tur maa ngi fàtte sa tur waaye dinaa ko dina Assane dina ma ko jox. Mm. Eh, da ngay xam ne ku nekk ndaw ku nekk ndaw lii mu toll toll woon nañ ci. ay jamono la. dafay jamono jamono fi mu tey jii gis nga li mu sol. waaw wala déchiré déchiré yeeg affaire yooyu dee dama yooyu mu sol ci turam bi dafa tëj. waaye nag xam nga àddina kenn ku nekk la nga maasee rek ngay sol. man am na jamono yoo xam ne ñu di naan sol pantalon boo xam ne tànk bi nii lay toll. Hmm, patte d'éléphant hmm. te tamit ji seere ci kaw. li seere léegi kenn léegi boo ko solee ñu ne kii xanaa dafa dof. àddina moo deme noonu jamono bu nekk ak la ngay war a sol. ak la ngay war a takk ak la ngay war a jamono la. ba ci watee foog yëpp loolu yëpp ay jamono la mais nag bul fàtte ne jili euh, noonu mu tur bi baaxee noonu la baaxee waxuma ko parce que mu ngi toog ni xale bu baax bu yàlla lii muy sol nag dafa day jamono rek waaw noo xam naa ne moo tax waxewu ko bu dara parce que père daf ki bëgg ki bëgg rek moo la sonal mooy xool dëgg la mooy xool saa su ne li ngay sol mooy xool comportement bi nga am te wax na dëgg désiré moom dootu boo ko sol boobu désiré moom maa bàyyi laa ko boobu dootu boo ko sol mais kontaan naa ci moom bu baax a baax a ndax euh, sama papa Serigne Diop la ma tuddee sëñ Abdou Khader Mbacke ilimaana jumaa sëñ Abdou toog naa nii nuyoog moom mu ñaanal ma waaw da taawam bu góor bi mm-hmm. bu na ba ci moom mu toog mu ñaanal ma nii waaw mm-hmm.